également euh, sentiment bi ngeen am ci verdict bi nga xam ne dégg ngeen ko sànq mu tukkee ci juge bi. waaw alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant sunu sëriñ Seydi Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ci xéewal gi mu defal. man maa ngi tudd Moussa Gaye di président collectif international des talibé cheikh officiel xam naa dañuy wax ni Euh, lii nga xam ne moom la siis bi dogal ñun ay citoyen yoo xam ne dañoo gëm suñu justice su réew te itam bi ñu dikkee justice bi euh, li mu joxe doy nañu. mooy jox na ko sur six mois. six mois yi ko jox nag maanaam doy nañu satisfaire nañu. ndax six mois yi day jàpp cinq ans. tëdd na un mois tekki day jàpp cinq ans. cinq ans yooyu bu fi defaatee lu mel noonu day ñëw tëdd six mois ba pare. ñu doog koo àtte kon loolu satisfaire nañu parce que ñun ay jullit lañu te itam amuñu intérêt pour di tëj lu Omar Sall amoon nañ lu ñu naqari li ñu naqari woon ñëw nañu wax nañ ko justice bi nga xam ne jàpp nañ ne moom moo mën a àttee sunu diggante ak moom li mu àttee doyloo nañ ko sant ci yàlla parce que nag ñun ay taalibe lañ ay njabootu lislaam lañ xam naa bu ko defee foofu rek laay gàttal te jéegul na ñetti yoon jéegul na ñetti fi nga xam ne moom mooy kanamu justice tribunal bi mhm. te loolu nag yaakaar yaakaar naa doy na sëkk mhm. parce que réccu na ko te nee na li ko gën naqari ci àddunaam mhm. mooy li nga xam ni dal na ko ci wax ji mhm. kon nag loolu ku mu doyul lay doy parce que ñun jóguñu pour mbugal ko jóguñu pour euh, métital ko waaye li ñu bëggoon rek mooy mu xam fi mu war a yem mhm. xam ne dañoo nekk ci liberté de culte kenn ku nekk sañ ngaa dund li ngay dund te doo ci am benn problème kon loolu rek moo nekkoon kàddu yi tey boo koy conseiller lan mooy doon conseil bi ngeen koy jébbal waaw conseiller bi ñu koy jox mooy na jàngale rek ni ko yonent bi sante ud'u ila sabili rabbika wal maw'izatil hasana ud'u ila sabili rabbika wal mawizati l xasana na jàngale bil xikmati wal mawizati l xasana ndax jàngale man ngaa jàngale ci anam bu rafet anam bu tedd te doo offensé kenn te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la santaane comme ñoom nag nee nañ yonent bi la ñuy roy ñoom ñooy roy sunna ah waay waay sunna noonu la bu ko defee kon nañuy jàngale ci njàngale yonent bi ndegam moom la ñuy roy moo ni nañuy jàngale ci jàngale boo xam ne day ñuy jàngale ci jàngale boo xam dañ koy teg ci sachage te loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ni jàmmoo naan ñooy parce que fii mënoon nañ faa bañ a àgg parce que li mu def tey ci kanamu tribunal bi ñetti yoon su ko defoon kon du yegg fii parce que defee loolu rek mooy li nga xam ne am nañ satisfaction bu baax a baax ndax wax naa ko sànq sama njëlbeen wax ñun jublu woon pour mbugal ko jublu woon pour métital ko waaye liñ bëggoon mooy li ko réere woon mu xam ko te yaakaar naa xam na ko tey ko defee loolu rek dégg nañ également ibaadu yu rahmaan euh, yu daje woon euh, dem seeti ay kilifa également ci tariqa bi ngir rek ñu euh, teg mbir yi ci suuf est-ce que loolu mënoo ko confirmer. waaw loolu dama koy confirmer loolu jotoon na am waaye itam yéggul woon fa mu war a de muy àgguñu woon ci cappaandaw la. lu ko waral la ko waral itam mooy kenn kilifa daa génn ca ñoom. wax loo xam ne moo salfaañe yëf te itam am na loo xam ne bu fekkente ne yow da nga bëgg en tant que kilifa yow booy wax da ngaa war a wax loo xam ne jàmm lay doon danga ngaa war a wax ju dal waaye kilifa dafa génn ci ñoom waxee noo xam ni dafa yàq mbir ma. ba tax na loolu moo tax médiation boobu àggul. wax ci euh, euh, li ñuy wax rek mooy man fi may gën a sensibiliser ndaw ñi mooy nañu fexe ba ndaw ñi géew wasifa yi nañ koy fees fees. ndax fi mu ne nii loolu mooy l'essentiel bi géew wasifa yi nañ koy fees ndax nag dafa am loo xam ne nit bu la dee wax ni la maa la gën a gëm diine wala maa la gën a gëm diine fexeel ba bu demee ca jàkka ja ba bu yegsee yow na la fekk na ko jiitu ci jàkka ja mm-hmm. bu ñibbee na la fa bàyyi mm-hmm. su ko defee loolu la ñuy xamee ndax Seydi El Hadji Malick la mu waxoon rek ñun ci loolu la ñu nekk sunna ñoo koy dund na uddu alayha bi nawaaji si mislama xaale fi fi fi idaa i alaa yaa rasulallahi yaa afdalal wara fahaa nahnu fii diixin sadidi taraakumi walam narju faarijan si wallahi wal haadi li sublil makaarimi fii awdi diinina gariban kama fi lbati yaa xayra rahimi ahlana ahla gurbatin wa ahla itibaaci sunnatin fi taraaxumi kon yaakaar naa ni kuy dund sunna doo ko jàngal njaboot Seydi Ahmad Tidiane waaye rawat na Cheikh Seydil Hadji Malick alayhi ridwal Malick yàlla nañ ko yàlla fayal dañoo am dañ ko ameel bor bu ñu mënta fay mm-hmm. kon li ñu war rek mooy maa ngi ñaan ndaw ñëpp nañu gën a fonkaat seen kurus gën a fonkaat seen xadaratul juma gën a fonkaat seen waxtu juróom surtout gën a fonkaat seen waxtu juróom kon loolu daal la am loo xam ne dinaa ko conseiller ndaw ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci xadara bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man asalaamaaleykum fi ñëw en tant que jullit boo xamante ni day roy Muhammad sallallahu alayhi muy salafiste salafiste mooy mag ñu baax ñi mooy saxaaba yi mooy ñu doon topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu si la ñuy dee si la ñuy dund te si incha allah si la ñu yàlla teg wante man benn euh, question laa bëgg a mooy que yonent bi sallallahu sallam ndax mës na déranger ay dëkkandoowam 6 heures matin man sama koñ dafa am ñoo xamante ni. 6 heures du matin dañ may déranger te déranger ñu may déranger incha allah si kàttanu yàlla dinaa porter plainte te su ma porter plainte nag procureur laa bëgg mu dégg ma su boobaa nag ni te téye Oustaz Omar Sall un mois deux mois nañ ko téye ñi nga xamante ni xam naa seen tour te ñoom laay porter plainte parce que chaque 6 heures du matin du ma nelaw dañ may déranger léegi moo tax incha allah si kàttanu yàlla kon. comme ñëpp yem si si justice bi te ñëpp yem euh, si tribunal bi man loolu incha allah loolu laa bëggoon nag pour procureur yëg ko su ko defee incha allah fu muy daanelee mooy li nga xamante ni mooy. Euh, li ngay moo li ngay jox li ngay jël li nga xamante ni li moo ëpp li ngay jël fi nga daanelee fi may mooy li nga xamante ni mooy ku taxaw daal di ne saa ko yénante ñoom li ñuy xaar pour plainte kooku ki taxaw di nga xamante ne di wax lu bon si yàlla yoon ñu bàyyi ko parce que jotew ñoom moom dara maa ngi wax nag au nom de collectif international des talibé cheikh président bi di oustaz Moussa Gueye présidente bi di Adja ma Mariam Faye ñun li ñu naqari mooy Omar Sall nañu bàyyi jotew ñoox moom dara takkuwaay jigéen yi tey ngir gën a dëgëral tarixa bi lan la war a doon. waaw takkuwaay jigéen bi pour ñu gën a ja euh, euh, dëgëral tarixa bi mooy yaay yaay mooy école bi war a yar njabootam te éducation de base buñ ko defalee suñuy doom jaaral leen ci yoon bi jëm ci tarixa bi suñu yoon dinañ ci jëm ndax ñun ñoo ngi ci ba pare. ñoo ngi ci ba pare dañ siy buux suñuy doom buux si képp koo xam ne rek xam nañ la nga nekk ci tariixa Seexuna Tijaani asalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf yaay jërëjëf